li may daanelee mooy lu jëm ci wàllu Sénégal ak euh, teew gi mu teewoon fële ca Genève muy soixante-quinzième assemblée mondiale de la santé mu amoon ci la mais huit bii nii euh, weesu ci siège des Nations Unies bu Genève li ci mat a saluer te rafetlu ko mooy Sénégal nee na ñoo bañ ci li ngeen bëgg ci wàllu gis nga ñu ñuy làqatu mooy VIH wàllu xeexum sida lañuy ñuy làqatu dugal ci dooleel ngóor jigéen ak jigéen góor juróom benn fukki réew ak benn ñoo ne d'accord nañu pour ñu jaare ci wàllu santé wàllu xeexum sida dëgëral ak ngóor jigéen ñaari réew ñoom ñoo taxaw ne noo ñun nanguwunu mooy Sénégal ak libi waaw góor Sénégal waaye waaw góore ànd sàmm ji koy <laughs> li tax mu mat a jëfal Sénégal bañ gii mu bañ ñii ci deux mille vingt deux deux mille dix huit discours yi changé na ci diggante bi diggante deux mille dix huit ak deux mille vingt deux discours yi changé na fi Sénégal bi mu teewee Genève bi deux mille dix huit ndaw yañ yebaloon dañu ne Sénégal amul benn loi bu fay tere homosexualité. loi bi fa am bii tere li muy tere mooy acte contre nature mais homosexualité amul loi bu koy tere loolu 2018 la bi Sénégal demee Genève même Genève gii Sénégal demoon ni amul luwaa buy tere homosexualité acte contre nature dafa am boo xam ne da nga ko defee ci public te bu boobaa attentat à la pudeur lay doon Sénégal googu tey la 2018 2019 ànd sàmm ji koy jug porté benn combat dañoo bëgg ñu criminaliser LGBT yóbbu loi assemblée ñu rejeté ko ba léegi teggi wuñ suñu tànk fañ ko tegoon waaw kay suñu gouvernement kon mi ngi bàyyi xel ne population am ñi ngi taxaw lay xew Genève ñi ngi ciy teg bët gis nga buñ bokkoon ci 61 réew yi nangu <laughs> danañ jéggaat ànd sàmm ji koy dénoncé ko ni mu dénoncé woon lañ foo waxee woon 2018 waaye danañ leen jaajëfal ci bii sant leen ci bii gërëm leen ci bii man en tant que Makhtar Sarr benn membre ci biir ànd sàmm jikko yi la ca des xëy na ànd sàmm jikko yi officiellement ñoom danañ ko topp lan lañ cee wax danañ ko ca wax waaye daal lii nga xam ne def nañu ko lu lu rafet la ci turu réew mi <laughs> ci fi àdduna bi tool ak sëkkatal gi ñu sëkkatal donte am na yeneen yoo xam ne mu nga ci geneen wet ga yooyu luñ ciy wax war ko dénoncer danañ ko denoosi mais bu amee looy naqarlu loo ci gis luy jege lu toll ne dee deewu we ci luñ ciy saafara danga taxaw ni jaajëf ndax dinaay wax ne opposition moomu ma pouvoir moomu ma damay jéem a taxaw ci dëgg man naa am nag la ma jàppee dëgg du dëgg waaye képp koo xam ne def na loo xam ne nii lu ñu saluer la lu rafet la danañ la wax ne waaw góor nekkunu rek koo xam ne dafay gis lu bon ñu def ko mu ne lii lu bon la ñu ngi dooleel ngóor jigéen su gisee ñooña di dooleel ngóor jigéen am lu ñu reculer duñ ne reculer nañ ci loolu nëbbu ko non jéego bu am danañ ko dénoncer dellu ginnaaw gu am tamit danañ ko encourage ba tax na kon vingt 28 mai bii Sénégal teewoon ca Genève lanka wote résolution bii nga xam ne nii moom moo jëmoon ci wàllu ngóor jigéen ak lu ca aju dooleel ko jaare ci wàllu santé rawatina ci wàllu sida donte programme yaa ngi fi nag ci biir réew mi programme mu sida yi nga xam ne ci la ñuy dugal ay milliards te góor jigéen ñi di ci buruxlu yooyu mi ngi fi yeneen la xam nañ ko ñu ngi koy dénoncé waaye su demee ba Genève nga xam ne mooy siège u Nations Unies ba nga xam ne ca la gën a bari ci lii dooleel ngóor jigéen fa lay juddoo Sénégal man fa dem ci 2022 bii taxaw ne non nanguwunu waaw leen góor su ngeen ko defoon 2018 def ko 2015 def ko 2013 ci yenn discours yi nga xam ne ba léegi dañ koy nettali kon defe naa ànd sàmm ji koy du jug naan dañuy bëgg ñu arrêté benn agenda LGBT mais agenda LGBT bi nangu woon yu mel nii yu tegaloo ci ginnaaw tàmbali koo dugal ci ay loi moo tax ñu ne loi ñu tax moo taxoon ñu ne agenda LGBT yi nañ ko dakkal nañ ko arrêté su ko defee loolu noonu lee lañ doon wax ci loolu